nekk sénégalais ma ñëw découvrir leen ko wax leen ko parce que man dama am lu ma seetlu depuis bi coupe du monde bi jeexee dama xam ne équipe nationale bu Sénégal am na loo xamante ni war nañu ko renforcer ci côté yu bari sur ci bépp secteur ci bépp secteur nag laa wax de war nañ ko renforcer muy côté défense muy côté milieu muy côté attaque donc looloo tax nag man ma ñëw fas yéene leen découvrir ay jour ay Bignona Sonae et tout ça donc kon képp koo xamante ne bëgg ngaa gis loolu rek maa ngi lay ñaan nga abonné te activer cloche bi ndax chaque euh, presque chaque semaine naa ñëw defal leen ko euh, et que man li may wax rek mooy que bu ñu defar tamit du commencé ci ci équipe A bi mais ci petite catégorie bi lay commencé euh, jëm ci équipe A bi parce que loolu petite catégorie yi tey moom moo ñuy may ay ay gone yoo xam ne dañu am avenir ngir ñu jël relève bi ëllëg ci équipe A bi donc moo tax gone gi may def découverte mën naa mën naa maintenant, am amagul capacité ngir ñëw ci équipe A bu Sénégal mais am na capacité ngir ñëw ci équipe U18 U19 U23 bu Sénégal donc euh, di wax rek euh, parce que gis naa coach euh, U23 bu Sénégal muy def liggéey bu am solo muy Demba mbay mais comme que ñun ñoo fi mën nañ ko jàppale ci liggéey bi et tout ça di indi ay boo yoo xamante peut-être que moom mën naa bañ a am jot bi ngir découvrir leen mais ñun dinañ am ben temps ngir xool et tout ça def ay recherches ci ñoom aujourd'hui nag ki ma leen di andi euh, defal leen ci découverte mooy Yoni Gomis Yoni Gomis nag benn jour euh, la doxine sénégalais nekk ci club boobu di la Havre la Havre la nekk ci équipe B ci équipe réserve bi donc foofu la nekk mu doon ab défenseur central donc man information yi ma ci jotaam mooy que moom yaay ji mooy française papam di sénégalais donc information yooyu laa jotaam d'après mes recherches mais mi ngi juddoo foofee la France euh, le 23 septembre 2005 euh, euh, donc actuellement parcours bi mu jot a def man wax FC Rouen. la la jaar avant muy def dem Le Havre ci équipe Bob Le Havre en 2018 parce que Le Havre ku ne xam nañ leen parce que ñoom benn euh, équipe la boo xamante ne dañuy former ay jeunes joueurs dañuy former ay jeunes yoo xamante ne dañoo am euh, talent donc yàgg nañoo gis ay joueurs yu fa jéene ku ci mel ne Pogba ku ci mel ne Ferland Mendy euh, ku ci mel ne Lys euh, donc ku ci mel ne Pempe bi nekk Paris Saint-Germain ci centre de formation bu la Havre la jéene kon booy bi mën nañoo wax que ne. Euh, mën nañu am mën naa am source d'inspiration ci ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo fa jénnee di ñoo xamante ne aujourd'hui euh, ñu ngi leen di dégg euh, ci football mondial et que Yoni Gomis comme ni ma leen ko waxee c'est un défenseur très talentueux très talentueux même parce que en ce moment nii ci U19 yu yu Le Havre nekkoon na fa capitaine loolu dafay wane leadership bi nekk ci moom ak euh, li nga xamante ne waa Le Havre euh, euh, mooy yaakaar espoir bi ñu am ci mom donc comme ni ma leen ko waxee instant bii nii suñu fédération bi war nañu juk def liggéey ci boy bi indi ko parce que actuellement commencé na football ci équipe U18 bu France football na fa lu tolok 5 mars kon lool da fay wone que ni boy bi amna avenir amna eh, wa France am ci mom espoir té instant bi nga mëna dem ci mom convaincre que indi ko ci suñu équipe U18 yi parce que fois que nous dañ fi euh, même si que sax mais euh, c'est le moment ñu dem boy yi parce que filé commencé ci xalé yi jëm euh, ci ci ci en tout cas le défenseur le qualité et défenseur il est bon ci jeu aérien duel day il est bon ci anticipation parce que défenseur buñ nga vif tay mom il est vif il est rapide il est technique également et aussi am détente bu baax vraiment euh, am na bu baax ci âge bu mo am 17 euh, ans rek euh, la am jamoni mais am timing bu baax également donc lool moo tax ñuy wax défenseur classe mondiale donc ko xamante maintenant, baax nga ci anticipation également am nga baax nga ci jeu aérien yi donc vive nga manam gaaw nga donc loolu noonu euh, te am nga détente bu baax euh, loolu mooy qualité yi ñu ràññee défenseur euh, moderne ci jamono yi te yoni Gomis am na loolu lépp donc booy bi kon na fédération bi jéem a gaaw dem ci moom andi ko que ça soit muy U18 que ça soit muy U19 que ça soit muy U23 parce que instant bi foofu la football bi toll te kam ko européen yi rawe nañ ñu lu ci lu bari jamono yi ci football il faut nag ñu jéem a dabaatal ci année yi ñu jëm kon nag mbokk yi laa andi woon. Euh, pour défendre les découvertes découverte aujourd'hui euh, Benen yon dinañ ñëwaat ci benen de benen jeune talent euh, sénégalais lay kon commenter